Kanyi lay don kuy walu askan wi kanyi la kanyi la kanyi lay don kañ lay don ku ñuy wàlloo amuñu luñu lek amuñu luñu nan naan buy xiin di mbënd ci ndox mi lañuy fa nan ko gis mu ne tekk njàkkare ko daan sa ngéyam rongo ñi di gawa tokh ni salan ndox courant yek se gul ci yenn gox yi ba tey étudiants de ku sox yi fagay champ de bataille njàng mi di sox profit grève ciow li du tay paj mi téew dox mag ñi wax ba taay béykat baa ngi jooy sàmmkat bi nappkat bi soxla ku leen geestu wuy yooy dafa doy àll baa ngi laaj wàllam bu leen ko gasoo